waaw président yow gis nga vidéo bi vidéo bi daal démb ba léegi moom la nit ñi di jël di partage groupe whatsapp yeeg tiktok beeg vidéo ah? Sénégal gépp nga koy partagé. mais mais lii du dara. Sénégal gépp ngi sànni seen tànk bu rëy. waaw. eh faar. tànk bi. ñetti lii du dara xool dafa wéq tànk bi ñetti yoon. te daa laati suuf. mais mais lii dara. xam naa yow la ñuy gaar yaakaar mënoo ko de. kon kan moo ko mënul. yow pour yow man eh bu si dugg président. ah non da ngay dugg. mën naa ko. ah Sénégal gépp nga koy partagé de. ñëpp nga koy partagé. ñëpp Sénégal gépp gaa yi ñu gaar waale sax naan lii seen principe mënu ko. ah waaw pour ñoom man mënu ma bi bi wek na ñaa ñetti yoon te tànk bu wàcceel mën naa ko li mel ni dañ la bu si dugg mais je vais le faire je vais le faire dama koy def eh pérési ah non non non non je vais le faire kañ def escalier kay xale la de non on va laisser les escaliers je vais montrer que lii mais kay la mais man la la pour man mag la waaw man sama eh. sama tànk yi pour yow day def effet sama tànk yi dafa la fa nañ dem je vais le faire non que je vais le faire ça je le dis

mënu ko defee tak tak tak tak tak tak ñëpp ci def tak rek waaye ma essayé def moo tax li ma def ñoo ñoo xam डाकू कि tapi ada teman saya ya ya rumah itu kan kan gini di sekolah kan gini di sekolah tak tak tak kita itu kan gini di sekolah harus nih kan ini kan jangan dibuka ambulance ambulance. déedéet moom nga def woon tak tak tak defal. ambulance ambulance de l'ordre. non déedéet dañu ko war a partagé dañu ko bëri. bu doon partagé. ambulance. suñu daal léegi dama nga ko partagé. suñu daal. bu ko dugalee bu ko dugal. non non mi ngi direct man direct direct laa nekkoon. Ah. président ku ko ku ko ah. président président pour